naan laaj nga lépp de boo laajul daal a ngi sant sëñ Tuubaa daal bu baax waaw ñu ngi sant sëñ Tuubaa baax moom waaw jërëjëf. jërëjëf ñoom ñoo ngi leen koy jaajëfal